donc pas agi pour la mairie de faire la culture à la place des acteurs culturels ou d'imposer aux acteurs culturels une manière de travailler. Il s'est plutôt de mettre en place un dispositif permettant aux talents de se découvrir et de s'exprimer dans un cadre approprié. Mon souhait étant d'élaborer un nouvel espace public local dans un cadre voué à une dynamique sociale et culturelle permettant aux hommes et aux femmes de culture de dépasser, de passer du statut d'assisté à celui d'acteur. Il s'agit de mettre en place un mouvement de participation dans une action collective. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, mon ambition était et encore également de créer un espace de rencontre, d'échange, un lieu de réflexion et d'élaboration pluridisciplinaire. Cela repose et reposera sur un travail de proximité, avec une mise en commun des compétences de tout un chacun. La société civile et ses acteurs seront mobilisés pour appuyer et développer un réseau et des initiatives locales, mais aussi internationales le projet doit se développer dans le sens d'une éducation autour du travail et de la culture, apporter des connaissances et des moyens pour permettre l'épanouissement, la croissance et la production de l'intelligence, la mémoire et l'imagination. Les pratiques culturelles et artistiques nous amènent une diversité et une richesse considérable. Le projet culturel de la ville de Guédiawaye s'appuiera sur les différences pour instaurer un dialogue qui peut différer dans les langages. Créer un lien, établir des passerelles permettant aux acteurs culturels de former un groupe homogène, de qu'on diront que c'est un vœu pieux, mais en tout cas un groupe cohérent. Ainsi seulement en synergie avec les autorités municipales et en parfaite intelligence avec tous les acteurs, la volonté de faire de Guédiawaye une ville culturelle se réalisera. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, chers amis, il ne s'agit pas de vos pieds, je le disais tantôt, ni de propos de campagne électorale, il n'y en a pas d'ailleurs en ce moment, mais d'une volonté réelle de cheminer avec les acteurs culturels. Dans le respect mutuel, dans la vérité et dans la transparence. Mais aussi en tenant compte de la réalité et des possibilités qui nous sont offertes, sans verser dans la démagogie. Depuis quatre années que je suis à la tête de l'institution municipale, j'ai essayé autant que possible de respecter cela. Je dois reconnaître que tout ne s'est pas toujours déroulé comme souhaité. Nous sommes parfois contraints par une réalité lourde d'imprévus, qui heureusement possède un vaste champ d'action et de possibilités. C'est justement dans ce cadre que le Festival international de Guédiawaye culture et musique ethnique, initiée par la mairie et confiée à un acteur culturel d'envergure nationale, M. Abdourahman Touré, à ma droite, vous me permettrez de profiter de cette tribune pour féliciter M. Touré, qui depuis plus d'un an ne ménage aucun effort pour que le festival de musique de Guédiawaï se réalise. Son dynamisme et son esprit d'abnégation fini par triompher. J'ai donc l'honneur et le plus grand plaisir de vous annoncer que le Festival international de musique ethnique aura lieu les 5 et 6 octobre 2018, Inch'Allah. Cette manifestation de grande portée sera le point de départ d'une nouvelle orientation de la politique culturelle de la mairie. Mais auparavant, je voudrais rencontrer les acteurs culturels dans le courant du mois de juillet afin d'échanger, de continuer à échanger sur leurs ambitions et leurs difficultés. Il sera également question du financement de la culture que nous voulons désormais plus rationnel, de recueillir leurs avis à propos des infrastructures que je veux réaliser, de d'échanger sur l'orchestre départemental dont la mise en place est imminente. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, la ville ne laissera jamais tomber les acteurs culturels. Il s'agit de libérer leur potentiel créatif de soutenir leur capacité à se regrouper, à s'investir dans des logiques associatives. Cela est d'autant plus important que je demeure convaincu qu'ensemble, nous pouvons obliger les fruits à tenir les promesses des fleurs. Je ne promets pas l'impossible, mais je ferai tout ce dont je suis capable pour qu'aucun acteur culturel ne souffre d'aucune quelconque injustice, que les portes de la cité ne se ferme sur aucun citoyen qui qu'il soit. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous en prie, je vous en prie, euh, Madame Touré. Okay. On fera une pause, Inch'Allah, une pause musicale. Merci beaucoup, Adjara. Merci, merci. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est culturel. Euh, merci, merci de votre attention. Alors, euh, votre attention, s'il vous plaît. Merci. Alors, Monsieur le maire, dans son ouverture, a tenu aujourd'hui à échanger directement avec euh, la presse. On était parti sur l'idée de faire juste un point de presse où il annonce justement ce festival, mais il voudrait pouvoir échanger puisqu'il s'agit de culture directement avec les acteurs concernés. Donc s'il y a des confrères dans la salle qui ont des questions relatives à la culture, à ce festival, Monsieur le maire va, prendre certaines questions auxquelles il pourra répondre. Merci beaucoup. Je vais essayer d'abord de résumer ce que j'ai dit en Wolof. Euh, avant effectivement de donner la parole à la presse, les acteurs culturels pourront aussi poser des questions, mais pas développer, parce qu'on aura une rencontre à part. Mais on donnera d'abord la parole à la presse. culture euh, sunu mbokk journaliste yi ñu wuyu si fii bi may waajal élection locale 2014 bokkoon na ci ñi ma waxtaanal acteurs culturels yi woowoon leen ngir waxtaan ak ñoom ci li nga xam moo nekkoon suñu projet pour fexe ba géejawaay nekk dëkk bu neex a dund ma kontaanoon lool à l'époque ci ñëw bi ñu ñëwoon ñoom ñëpp ak waxtaan yi ma amaloon ak ñoom waxtaan boobu ma jëlee woon ci ay jàngat yu bëri bokk na ci li nga xam ne foog rek laa ci amoon muy potentiel bi amoon au plan culturel Guédiawaye ma dem ba teg ci suma loxo xam ne euh, Guédiawaye dëkku culture la en fait ndax dëkku ñu yàlla may xarañ la ci wàllu culture ba pare ñoom it ñu dellu nekk ay acteurs maanaam ay militants ci wàllu culture ci domaine yu bëri na ci laa découvrir ay personnalités yu mag yoo xam ne dama leen doon seen au niveau national waaye mënuma leen woon féetale géej Guédiawaye ndax xaw ma woon fii la ñu ci domaine yu bëri ay écrivains yu ñëpp ràññee ci Sénégal ay dramaturges ay metteurs en scène ay comédiens ay chanteurs ay peintres domaine yëpp ay fecckat ay tëggkat ñoo xamante ni dañ leen xam au niveau national mais keroog la découvrir que ndekete mën nañ wax ne géejawaay mooy source potentialité culturelle du Sénégal loolu nag gannaaw booba ko xamee jur na ci man fierté bu rëy waaye euh, tax na tamit ma gën a sawar ci ambition yi ma amoon ci fexe ba nga xam ne culture bi dana nekk levier développement bi ñuy xaar ci Guédiawaye waxtaan boobu tamit waxtaanu dëgg la woon maa ngi fàttaliku keroog bi nuñ ko fii waaye dinaa ko wax fii ne ah xalaat yi ngeen fi indi yëpp baax na waaye nag jàngat bi ma ci am mooy dafa mel ni euh, potentialité bi am na fi waaye infrastructure moom manqué na fi lool ma ne nag maa ngi leen di wax yéen acteur culturel boobu nekk gu ma maire que su ma nekkee maire danañ dimbalante danañ jëflante waaye digguma fi kenn nag ay subvention xaalis il faut mu leer loolu defe naa waxoon naa ko keroog boo fekkee woon nga wala newoo fa woon kon bul ree parce que boo réeree ba mel ni yaa ngi weddi waaye defe naa am na ñu fa nekkoon yaa ngi fa woon loolu laa waxoon lu leer ma ne leen nekk gu ma maire xaw ma lu fa nekk waaye ci sama gis-gis maire yi ni ñuy fonctionner ak culture événement bu am ñu def soutien génne fii loolu du doxal culture liy doxal culture mooy ñu am benn soubassement am niveau infrastructurel bi nga xam ne suñu potentiel yi au lieu ñuy dem toujours Dakar ak feneen di ko fa développer noonu dinañ ko mën a développer fii donc loolu moo nekkoon axe centrale suñu développement ci wàllu culture ñu ne nag du ñàkk nag ñu dimbalante ak nit ñi parce que maire bi dem loolu mooy rôle am waaye bi ñu ñëwee ba nekk maire ñu ne loolu ñu amoon comme ay mëbët pour ñu mun ko doxal il faut que ñu liggéey ak ay ñu nga xam ne ay acteurs culturels lañu ñoom ci seen bopp loolu moo waral ma def appel à Pape Samba Badji ah Pape Samba nag kenn du wax ci géejawaay ne du acteur culturel créé bureau culturel ndax lu mosul am fii di jëflanteeg ñoom ma jox ko mission nag ne ko nag bu ñu réeree mbir man nekkuma fi pour def culture à la place des acteurs culturels dem naa sax ci biir préparation waxtaan ak yeneen acteurs culturels yu ci mel ni Sayba ci mel ni le gars qui est avec Omar Pène euh, Ousmane Faye qui a beaucoup pour jàppale ñu pour xool naka la ñuy créer ay mbir kon ambition mu ngi fi waaye li ñu wax ci texte bi ma koy waxaat ci wolof nit ki dafa am yéene yàlla ak dogalam am na yu bari dañ koy mëbët bëgg ko def waaye duñ ci yegg si Mais le problème, c'est que nous savons que la mairie ne peut pas faire culture à la place des acteurs culturels. Normalement, même le festival que nous avons nous les acteurs culturels créer ce festival, nous devons faire des choses. Mais nous avons faire 10 et 10 ans. Donc nous avons faire des initiatives. Mais notre objectif, c'est que nous devons faire tout ce qui est en train nous Parce que notre rôle d'organiser le festival. loolu yi faut nit ñi xam ko euh, kon ñun dañ fi nekk pour organiser mbir yi ba nga xam ne d'abord acteurs culturels yi danañ mën a échanger seen biir waxuma ne avant ma fiy nekk acteurs yi xamante wuñu woon jokkoo wuñu woon bi waaye ñëw giñ fi ñëw ak ubbeeku bi ñu fi ubbeeku tax na ba communication bi gën na dox ci biir acteurs yi loolu mooy dëgg bi. de façon indil nañu problème. gaa yi ñoom boo boolee ba ñu gën a miinante gën a xamante rek revendication yi gën a nekk ci kaw table bi waaye loolu mënul ñàkk euh, léegi nag lu li jëm ci mbiru festival bii dama ciy gërëm Abdourahmane Touré profitoo ci leeral lu bëri ñaari at ak mu ci daw ba fii ma toog di wax ak yow amul salaire amul xaalis bi mu ngi nii dafa dem ba man dama ci am kersa parce que ni may gis mu ci dang-dangee daw di dem di ñëw te di ma woo daf may woo ba fatigué ba découragé ah pourquoi parce que aussi yitte yi dafa bëri damay dem ba am ci kersa mais nag looloo taxoon ma choisir ko parce que projet bu bees soo buggee mu dox da ngay jël koo xam ne daf ci am passion moom la sama xarit bi moo Seck di wax ne sa fas doo doo ko dénk sa waay da koy dénk waayam ndax nee na noo ko waxee waaw mu ne boo ko dénkee sa waay rek moom soxla boppam la ciy dox waaye boo ko dénkee waayu fas moom balaa ma ci dox soxla façon lay njëkk a toppatoo kii nag waayu culture la waayu festival bi la moo tax loolu moo ko ci soxla ma koy remercier bu baax loolu laa xamoon moo tax ma choisir ko parce que mbir buy tàmbali dafay métti dafay jafe moyen bi amul idée bi taxawul dara taxawul il faut que am ko xam da ngay nangu rek sacrifié wu engagé wu pour mbir mi am ñaare sax boo demee ba mbir mu taxaw am ñu la gën a sawar ñoo ne ko fu xeet dem ak moom waaye rek àdduna mooy demee noonu mais ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm yéen journalistes ak yenn acteurs culturels yi di leen wax ne ñun sunu mëbët mooy jàppalante ak yéen parce que culture moo àttan lépp culture ci la lépp xej culture nag dafa yaatu sunu ambition mooy fexe ba nga xam ne képp kuy wax culture di wax ville de Guédiawaye di nga xam ne ñun amuñ ci xaj teg seen waaye nag ñuy def lépp dinañ ci am déglu bunt bi mu ngi nii Pape Samba Ba ci wàllu festival bi Abdourahman am na ñeneen ñu liggéey ci mairie bi ñoo xam ne ay acteurs culturels lañu man dama fi toog de temps à autre ñu ne waaw euh, trou bu bi man leen ba trou bu régie ah ñoo xam ne pour pourtant amul benn subvention bu ñu leen di jox mais bëgg gu ñu bëgg culture ak caada wàllu caada ak yooyu rek moo leen di dugal ñuy dem bay développer initiative yoo xam maire bi jàppalewu leen ci mais dama leen di tàllal loo di leen wax nag ni acteur culturels yi ñoo raw politiciens yi sax ci ñàkk a mun a juboo ñoo raw politiciens yi ci ñàkk mun a juboo parce que politiciens yi parfois seen intérêt bu taxawé ñom ñom ñu faté lañ jote woon acteur culturel nak nag même seen intérêt bu taxawé parfois gaay dañuy préférer ñepp ñak ma xamal leen nak de man acteur culturel la dé théâtre na théâtre na bima nekké élève ak bima nekké étudiant nekk na critique d'art bi ma nekk journaliste Walfadjri am na ku may wooyee léegi chef de desk may critiquer ay ay ay ay ay ay cré ay création artistique di topp ay artistes yu mag yu mel ni Djibaten Sambou bari xamuñ ko fi un grand artiste peintre discret mais aux œuvres grandioses ak keneen ki waaye dëkkoon Rufisque te defoon affaire bu géant boobu ci RTS bi euh, Diop ma utaloon tur Mbaye Diop structure ba mu tegoon buntu BCEAO maa ko utaloon tur ndax maa defoon article tuddee ko effrayant attrayant donc vous avez un maire qui est un acteur culturel ba pare awuma complexe awuma complexe ci wàllu culture damay assumer bëgg gi ma bëgg culture dama amul talent su ma aayoon instant yi may ma maa ñoom tar ñoo koy rawat di jeex daa suma benn xarit bu ma doon tooj mu ne ma yow daal taa yooyu xale lañ mu ne ma yow seetlu naa yow sa théâtre yëpp ah buur ngay doon wala gouverneur wala préfet ko <laughs> ma ne ko rôle yu neex yi nag moo wax dëgg yàlla <laughs> ah? ne ko role yu neex yi nag kenn bañu ko waaye nag du man maay choisir rôle yi dañ ma naan rek yow rôle bi ngay joué rôle bi ngay joué jox ma sumay parole ma dawal ko mais dama leen bëgg a wax ni man je suis ouvert li tax may préciser lii mooy damay dégg temps à autre ñu naan le maire n'aime pas culture le maire euh, gëmul culture et cetera c'est des faux problèmes merewu ma nag ñi koy wax merewu ma leen waaye tamit bëgg naa ñu bàyyi yooyu ñuy wax que non seulement wax ji dëppoowul ak dëgg mais tamit wax ji mun a yàq la li ma gën a naqari ci wax ji mooy principalement ñi koy gën a wax xam nañ ne c'est pas vrai parce que maa ngi ñoom liggéey nañ ci ay projet fii ma nekk en tant que maire ñu indi seen projet maa ngi ñoom ñu liggéey ci ba yàlla def ci ndam kon su ma dellu si waatee gisat même acteur yoy di développer discours contraire ak ma ngi lañ doon def parce que simplement xeyna tay jappalé bañ ci amone amatuñ ko lolu dafa dafa doy wax mais nak lolu ñun duñu décourager parce que lolu moy suñu rôle suñu rôle moy di dékku mbir yi diko accepter di avancer ëllëk tamit bu ñu del su waté rek ñun it dana mel ni ñoom def dara dañuy ànd ak ñom parce que nak dañu wara a ñaan ma leen di félicité bu baax parce que yéen ngi représenté Géejawaay ci télé bi ci seen yi ci lépp euh, di di di di di favoriser promotion wu Géejawaay di ci profité vraiment di leen jaale acteur bu mag le doyen ba comment il s'appelle encore El Hadj keroog encore ci koor gi bu may gis publicité yi mu doon su ma yaram day daal Euh, engagement bi mu amoon au côté de la ville événement bu ñu am rek day ñëw animé A ba Z événement buy jeex doo ko gisaat moom fekk na dem na bu yàgg <laughs> il le faisait pour Guédiawaye yàlla na ko yàlla yërëm xare loolu daal laa bëggoon wax en guise d'introduction di leen jox ak parole je vous remercie